abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér ci réew mi ci bitim réew. Sénégal. bërki démb ci fitna gi amoon ci Sénégal ginnaaw verdict coow Adji Sarr ñoom gouvernement boobu ñoo ñëwaat ne ñooy danañu def enquête ñu leen di laaj balaa ngeen di tàmbali enquête bi wax leen ñu enquête bu njëkk ba woon. fu ngeen ci toll ak lu ngeen ci def mu mel nii kenn ku nekk ci ñoom bu jëlee réponse buy tontu da ngay xam ne mag la buy wax dara ci li nga xam ne mérité wu maanaam ko la muy wax amu ci lenn loo xam ne biir na ko ne méngoo na ak dëgg parce que bu ñu demee ba di ñu wax naan dégg naa benn ministre Abdou Karim Fofana pour expliquer la présence de nervi mu ne ñiy génn ci askan di def naka sudul noonu faaw am ñu organiser wu pour défendre seen bopp échec du gouvernement parce que bu ñu demee ba ñoom ñi ñu jox kaaraange gi jox leen lépp ñeneen ñu taxaw ne dañuy assuré seen sécurité bopp day waneeg lajjite waaye ministre Antoine Diome boo ko déggee muy wax nga xam ne li muy wax dara ju ci dëgg moom moo ñu digoon ay force occultes moom moo ñu doon wax ne am na ñoo xam ne dañu dugg ci Sénégal ngir indi fi njombe may fàttali rek ne force occulte bu njëkk ci Sénégal du kenn Macky Sall la moom mi nga xam ne mooy jaay doole ci réew mi moom mi nga xam ne moo bëgg a dal ci kaw nit ñi moom mi nga xam ne mooy éliminer ay adversaires politiques parce que tout simplement moom Macky Sall dafa bëgg organiser en deux mille vingt quatre une sélection présidentielle et non une élection présidentielle kon moom président Macky Sall na xam ne ñaar fukki nit yi dee bërki démb deret jooju mu ngi ci loxo moom président Macky Sall te nag bu ngeen seetlo événement yi fi amoon li muy métti métti yëpp pour wane ne gouvernement bu Sénégal respecté wuñu sénégalais teguñu sénégalais yi ci seen place moonte Macron bu soñee sax Macky Sall def ñaar fukki sénégalais ñu rey ba tey jii déggu leen Macky Sall yëkkati làmmiñam wax ca loola wala mu masawu famille yi parce que tout simplement Macky Sall nawloo tul sénégalais Macky Sall dafa jàppe boppam buur ci Sénégal ñaar fukki nit yooyu faatu ñoom gouvernement bu Sénégal bu ñu jàkkaarloo ak askan bi war nañu leen wax dëgg parce que ñooñu faatu ay bal moo leen rey bal yi leen rey man gëw ma force de défense et de sécurité yi ñooy yëkkati ay bal di ko dóor ci population bi gëw ma lool xëy na danañu am situation bu ñuy nekkee ci loolu waaye bii xew ku nekk ci ñun ñi gis na ko Macky na presse bi xoñe ñal na presse bi waaye yàlla dimbali nañu ba presse étrangère <coughs> ñoom ñoo feeñal li xew Walfadjri dañ ko tëj ñu ne lu tax parce que ñu ne Walfadjri dafa doon woote insurrection mon Dieu waa léegi kan mooy dàq waa France 24 Sénégal waa léegi kan mooy dàq waa Le Monde Sénégal ñoom génne nañ lépp li ñu génne yéen presse bi filmé wu leen ko kan moo ko filmé les sénégalais sénégalais yi ñoo ko filmé et moom li tax tey jii gouvernement bi génn pour wax parce que xam nañu ne y a une pression internationale parce que xam nañu ne Nations Unies demandé nañu enquête pour ñu xam ñi ñu rey naka lañ leen rey moo tax ministre des affaires étrangères ba ci démb génn na wax waxi nax saxandak tey jii ñu dajaloo mel ni kanaar ak ci cuujam ñuy bëgg gëmloo askan bi ne li ñuy wax ñoom mooy dëgg ce peuple est souverain les sénégalais comprendre nañu li Macky Sall di jour moom Macky Sall na ko xam fàttaliku leen ne li am ci réew du kenn Macky Sall dong la naa ci biir réponse yi waay waay waay ñu ne Ousmane Sonko ndar képp gi ñu ko ndar parce que dañ ko barricade Ousmane Sonko dafa nekk en prison Ousmane Sonko dafa nekk en résidence surveillée loolu mooy dëkk ñun ñu dëkk kër góor gi yéen ñi ñëw kër góor gi gis ngeen ne ñun ñi dëkk kër góor gi dafa am ay yoon yoo xam ne ñun munuñu fa ñu fatt mbedd yi tey jii xale yi bu ñuy génn di jàngi école wala ñuy am fu ñuy jaar dañu leen di taxaw di xool oto yi di vérifier oto yi ñu mel ni ñu nekk ci état de siège pourquoi parce que Macky Sall de la justice Ismaël Madior Fall le tailleur constitutionnel dégg ngeen lu mu wax nee na amul décision de justice pour ñu def li ñu def Ousmane Sonko waaye nee na décision la bu ñu jël pour maintien de l'ordre c'est eux qui sèment le désordre à Kër Gorgui c'est Macky qui sème le désordre au Sénégal parce qu'il suffisait tout simplement mu wax benn ne bokkul ci élection yu 2024 réew mi dellu élection yi ngir waajal boppam wa sax certes ku dëgër bopp la c'est vrai ñooy lekk ci bool bi mooy ñi nga xam ne ñooy jiiroo alalu réew mi mooy dëmm yi nga xam ne ñooy lekk alalu réew mi di muucu deretu askan bi ñooñu ñooy pousse Macky Sall naan ko wuy danga nga war a def troisième mandat mais Sénégal ku ne xam na ne Macky taxaw na ñëpp jàkkaarloog moom ak kay jii ñu koy puus ñu ne pare nañu ci. 2019 moo doon seen mandat bu mujj mais nañu xam ne sénégalais yi pare nañu pour jàkkaarloog ñoom sénégalais yi taxaw nañu pour jàkkaarloog ñoom moom Macky ak ñi mu àndal. ministre de l'intérieur nee na ñooy dañuy ubbi enquête pour xam ñan ñoo rey vingt personnes. looy enquête yow ñi rey yàgg force de sécurité ñoom ñoo doon ànd vidéo yaa ngi fii ñëpp gis ko cinquante pick mën naa wër biir Ndakaar ta nit du ko gis cinquante pick-up yu yàpp ay mbër ak i nerf bi mën nañoo wër biir Ndakaaru di tambal mbalu ñëpp di leen gis moom Antoine Diome ne gisu leen il faut ñu def enquête il faut qu'on respect les Sénégalais ku ne am na ne ces nervis là fii la ñu doon jóge ci siège APR yéen ñii journalistes yi ku ne ci yéen gis na image li ci des nag mooy sénégalais bu nekk dina jël responsabilité parce que wane seen métit wane seen bañ nooteer wane seen jafe-jafe ci réew mi ah kenn duñu ko tere kenn mënuñu ko tere te kenn dong la yoon may pour mu def liggéey boobu mooy les forces de défense et de sécurité ces force de défense et de sécurité bu ñu deful liggéey bi nga xam ne ñoom la ñu war a def keneen ku wàcc ci terrain bi yéen ñi may waxal yéen jàmbaar yi yéen gaynde yi xam ngeen li may wax ku ngeen ci gis defal leen ko bagage c'est très simple bi dootul gat sa gat sa ñabal ñabal lay doon mu nekk wax joo xam ne ñoom la ñu bëgg ñu dugal ko ci seen nopp parce que les Sénégalais sont déterminés Macky Sall moomul réew Sall donnul réew mi réew mi santul Faye Sall santul Timbo bu fekkee ne dañu leen déy ne yi mun ngeen leen def lu leen neex da ngeen parce que là les Sénégalais sont bi nga xam ne Macky Sall moom lay def ci réew mi li nga xam ne moom la wane ci réew mi li nga xam ne moom la jëf ci réew mi te ku ne gis na ne li Macky Sall di def tegu ko fen amul fenn foo xam ne fa la ko wékk lu may def lu ko neex bi ma ci gën a metti mooy le jeune Babacar nga xam ne dafa engagé woon am engagement boo xam ne daf ko jëme ci communauté alpulaar avant ñu koy rey dem leen ngeen déglu message bi Babacar na wax suñu mbokku alpulaar yëpp la mu leen wax kilifa yëpp lu mu leen wax loolu jot na ñu xam naka lañu ko rey parce que c'est quelqu'un ku génn studio am nekkutoon sur le terrain des opérations famille am déterminé wu nañu Amnesty International dugal nañu ci seen loxo ni ñu ko defee pour yeneen ka yu am am na benn ku ñu may nettali au niveau de Guédiawaye un jeune nga xam ne ci seen salon ci salon bi mu nekk ci salon bi la ko balle perdue fekk après on ose nous dire que nos force de défense et de sécurité ñoom ñoo doon def en tout cas moom Macky Sall na xam ne sénégal yi déterminé nañu sénégalais yi pare nañu pour jàkkaarloog moom te incha allahu rabbi lu mu baax incha allah réew mi dinañ ko geer ci kanam beneen bi nga xam ne bëgg naa ci wax parce que dañuy wax ne Ousmane Sonko jotagul <laughs> encore jotagul décision notification jugement mais waru leen jaaxal affaire Mame Mbaye Niang ñetti fan la ñu génne notification jugement affaire Mame Mbaye ñam deux semaines dem nañu appel évacuer nañu dossier boobu tey ñu ne la non ça fait quinze jours ñoom mënuñu génne décision bu jëm ci Ousmane Sonko ñoom ñoo yëy parce que xam nañu ne sénégalais yi xam nañu li ñu doon ruumandaat ñoom xam nañu ne sénégalais yi gis nañu fen yi nekk ci dossier parce que nit mënoo ko jiiñ viol nit mënoo ko jiiñ ne dafa def menace de tey jii nga taxaw jàkkaarloo ak askan nan leen dama koy tëjee corruption de jeunesse corruption de jeunesse du lenn lu dul naan xew maanaam naan yuuru booy comme li gars di wax taaw taaw jëz wa ñu ne way dañu dama naan dama naan il faut qu'on sérieux un état c'est du sérieux nañu bàyyi caaxaan ce peuple a besoin de stabilité et de paix mais jàmm ji nekk ci réew mi jàmm ji ñu bëgg ci réew mi ci Macky Sall ci ay magam la nekk aujourd'hui ku ne gis na li muy def un semblant de dialogue boo xam ne yéen ci seen bopp am ngeen information ne dafa bëgg a pousse ay élection boo boo Macky Sall xam ne bu mu naree pousse élection yi dina jaar ci kaw néewu Sénégalais parce que biir nañu ne jafe-jafe yi ñu dund tey jii du kenn ku dul Macky Sall nañu ne tey bu ñuy wax dañuy wax jafe-jafe yi nekk ci dund bi jafe-jafe yi xaalis amul ci réew mi yaakaaroon ne wax jafe-jafe yi am ci wàllu xaar te mu lool tey jii diggante ñeent junni jaa jàpp ñaari million la xaar di jar fii ci Ndakaar population yi loolu lañu ñu soxla ces enfants, ces jeunes, cette jeunesse qui était dans la rue je le dis et je le répète li ñu soxla mooy ku leen yërëm soxlawuñu kenn ku leen yet li ñu soxla mooy ay nit yu leen taxaw li ñu soxla mooy am fajal seen njaboot ku amul jiin boo sol nga xam ne kilot nga yennoo ci koñ bi kooku sa bakkan am na fu mu toll ci yow kon encore une fois la responsabilité de cette situation bi am ci réew mi wax naa ko bi ma demee ci sëñ Muntaxa wax naa ko Thierno Madani Tall wax naa ko euh, démb euh, sëñ Mouhamadou Lamine Laye wax naa ko Cenaba wax naa ko Cheikh Mahi wax naa ko Papa Cheikh ca Léona Niassène fu ci nekk sonnation dal dem fa et duñu ci yem danañu ko continuer fuñ ci war a dem chef coutumier fu ci nekk danañ dem jéebaane Macky Sall wax ne réew mii bu amee kenn ku ko bëgg taal du kenn Macky Sall yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def dal ci Sénégal yal na yàlla suturaal ñëpp jërë ngeen abonné leen ci suñu youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ci réew